jàkkaarloo du sette ko xoolal kii li muy suul mu ngi ruut rek ci suuf ruut na ba pare a ah, doy na waar daa am lu muy suul xanaa dafa am la muy suul day kéwél a ngongu doomi bawal bi mu ngongu itam ñu ngi koy sotti rek xoolal Modja ca tànk ba Modja am na lu koy takkal ca tànk ya mu nga yor benn butéel moom la bëgg a sotte ko ba tey am na lu ñu koy jox moo jag butéel ba taala jël ko moog butéel bi nu mu koy def day naan wala day sotte ko mu ngay ñaan buy ñaan ba pare naan ñaante naan sotte ko waaw kéwél sukk na ci kanam takk ay sengoor ruus ak blanc wala ruus blanc bay lang ca ginnaaw lu weex la cay ji làmb cey ji làmb mu nga cëlee Talla Ndiaye ci gàllaaj ji mujj lañ nekk noonu nar a lamb wàllu teen la Talla Ndiaye boo dikkee ca pind ba ngay yem bu arbitre bi wootee ñëpp a génn ci biti yee eh, Talla lamba ngi. Babacar dafa mel na ñoom ñaar ñëpp liggéey nañu. non dañoo entraîné combat bi yàgg a taxaw. waaw waaw liggéey nañ de Babacar. combat bi dafa yàgg may fàttaliku ne bureau Dieng lañ ko taxawalee combat bi. waaw loolu yàgg na. fa la ñu daje ñoom ñaari mbër yi Matar Ndiaye andi kii di Modou Dia kewel Cheikh Anta andi ko ànd loolooy wala nekkoon tey jàppal combat baa ngi nii walluk teen la lamb ba tey Modou am na lu muy naan sotte ko Talla Ndiaye lamb neex sunu cosaan namoon naa ko la ko gën a nam Talla Ndiaye Babacar yàq nga ma ndeysaan eh Talla lamb sunu cosaan ah, noo ko moom mu koy wër da koy wër da koy wër ñu ne ko doo ko wër wër na ko ba pare wërante ci la bokk ci la bokk mu ngay sotte ko Talla Ndiaye Kewel a ngi mu jàngi nii kii war a Yoff kii war a Bawol Talla nuyu na ñëpp Talla grand combat ba ngoog moo jëm moo féete droite Kewel gauche e eh, mbokk yi sifir Leewtoo TV ak Walf TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar arbitre yaa ngi wax ñoom bala na ñëpp ak si weeru koor wi ñu jógee ak korite gi ñu jógee di baal ñëpp ak di ñaan yàlla buur bi boole ñu jéggal waaw waaw ndeysaan yàlla buur bu màgg bi waaye ñu fi bàyyeekoo ñu leen di jaale seen i mbokk yal na leen yàlla yërëm di jéggal leen waaye jàpp leen ne fu waay nekk di ñu ñu lay nuyu di la ziar wala nga nuyu seetaan waaw waaw ndeysaan Leewtoo la tey arbitre ba soufflé na de wala mu ngay waaj a soufflé Malick Ngobe arbitre soufflé na nuyu na ñëpp ñuy suivre à travers le monde ba bismillah maa ngi lay bëggee Serigne Ndiour ca Italie maa ngi koy bëggee Benzema nuyu naa la Khady Rose Ndiaye la fàtte arbitre soufflé na ñuy lewaatoo ndaysaan doxe wet arbitre soufflé na lu xew projecteur bi projecteur bi fay ko waa RTS yi la fay leen seen projecteur yi Talla Ndiaye fay leen seen projecteur yi wax na dëgg Malick Ngoma waaw way arbitre soufflé na Keweul wàcc na Modou Dia ñu gën a jàkk di xoolante ndaysaan Modou Dia gàmmu kii la mujj a daan Keweul qualifié numéro 2 la mujj a daan waa ndaysaan moo tax tay Fallou Ndiaye boole leen Modou Dia mbër mu jeexal képp la waaye Keweul daan nekk mbër moo xam ne nii dafa naqaree nag ndax day bousee déedéet du taxaw benn place moom géwél ndaysaan stade Iba Mar Diop 9 juin la tey ay waay lamba ngi nii ndaysaan jàppal te déglu te seetaan ci Leewtoo këdd na ko de Modou Dia arrière Modou wan ginnaaw géwél këdd na Modou Dia arrière boo xoolee ñoom ñaar ay teen sax ñoo ko xaw a nuroo ndeysaan dañoo xees e tourne ko gos Modja tourne gos laawu gos moom Modja kewel génn taxawaat ndeysaan kon ku ñuy suivre rek ñu nuyu sama yaay soxna Ana Cheikh Buntu Fall maa ngi koy nuyu di ko ñaa di ko jaale ni jaayam jooju kenn àddina Moussa Dia Thioune gëddaat na ko gëddaat na ko moo ja arrière waa ndeysaan àddina noonu la demal maa ngi ñëw du mën a ñàkk daw na jël ko moo ci jël na kewel moo ci jël na kewel kewel bañ na noobu na ko de du ko bàyyi de du ko bàyyi de du la gaaw a takk ba baaxul ci yow kewel da koy dawal dawal na ko kewel bañ na eh da koy bitar da koy daan na ko jëlee bu rëy Modja di jàpp di bàyyi woo pop pop pop Talla Ndiaye Talla Ndiaye toppal ma lii gëwël ba jógi ko Talla Ndiaye tànk mu yaakaar fooy suusu na gaa yaa ngi ñoom ñu liggéey yaram taw na ndeysaan yaram taw bëre la ko jaay moonte day jeexal bëre ah way dafa ñëwaat gos gos bu dal la jël lamin ku gos bi la oh di courage mbër ci ndam nga mujj bi ngay joge fii lëng nañu ko kewel lëng nañu ko lëng nañ ko di ko yóbbu oh. ana ana ana suñu toppoo ya non foog yàlla taw bu tawee lay sax incha allah. léegi li ma lay laaj mooy ci combat bi laaj tey en tant que reporter amateur boo xamante ne yàgg ngaa seetaan lamb noo gisee combat bi. waaw non combat bi ni ma ko gisee mooy Modja li ma lay wax rek mbër la boo xam ne waxoon naa ko maanaam moom action su ko amee du ko bàyyi boo xoolee te avant muy am action bi dafa ubbi loxoom góosam door ko kéwél kéwél dafa jël kuu góos kuu boobu nag da ko empêché léegi bi loolu amee nag ci biir gëdd bi noonu mu ngi koy gëdd. mu tëddee arrière mais da koy aspiré mu ñëw pour mën a daje ak moom moo tax bi mu ñëwee bi mu koy jàppee tànk bi la jàpp mu yaakaar fa lay yem mu aj loxo ca kaw ŋoobu ko du bàyyi parce que bu jàppee du bàyyi noonu la ko tëjee tëj ko ba sukkër bi ko ànd ak moom daan ko jëli bu rëy rëy. Gris 2 Reug Reug. li ma la